إلا الله لا لا إلا الله أني وجهي من قلبي سارا لو رجل لجبريل سبيل وسرسارا من بلي بمن ينصر دار الأوسارى mu defal ñu sama xol yi ma dem yaa jaara kulaay jaaram jaara maam jaara ma yow yaa kural jaarat mbaay bismilaay may tag mbër soxna jaara moom day mbër am na mbër bu fay mbër soxna soosa moom ñaar door a jëm ci kër góor ñaar ma julaat fa jigéen ñaar déglul ma wax la nag la mu bet ñoom jaara mus ko sopp jóge taxaw na ba soxna jaaratullaay déglul ma wax la nag la mu daj door a am ci faj bi mu faj ba nga xam ne faj bi duñ tëj lan bu rëy ko lay mën a faj suñ tëmbeel bu Bye. addiya ci Ahmadu Gueye addiya ci Ahmadu Gueye seen yaram daw mu jënd ku rëy def leen lu rëy wul du am lu rëy fekk ko fii ndax ko بسم الله لا يكسر الجوع الحمد لله الذي خلقنا جميعا من دين واحد الحمد لله الذي خلقنا على احسن تقويم الحمد لله الذي طيب لنا الحق بحب سيقنا القديم الكاشف القمة وعلى آله وصحبه وخير قديمه وأمته وسلم تسليما مبوك دلو يتادي مبوك تالبي جناوة جميلة جميلة تبي صلى الله عليه وسلم سان شيخ الخديم دينانا الجمبارم دينا حني موفي توغل تمتع أبجتا يمسك لنا حمد يوم نقول جوال ما هم جسم برم دفعك الكوين جوت سيرين منتخا لنا حمد يالا نطوانا خورب جولي بو أبي تك فسيرين منتخا ci ak mbaaxam ak wolofam ak taalibam rek a ko may ak bëggum Serigne Touba bu mu bëgg Serigne Touba di xëy ci liggéeyal Serigne Touba di si gont di si yendu di si fanaan waaye nag suñu borom fay na ko di ñaanal képp koo xam ne wuutu nga jàmbaare Seexul Xadiim ci fa nga ne suñu borom kàttanal la ba la sa maam nekkoon wala sa wuutu nekk sa suñu borom kàttanal la ba nga yeggale ko na nga ko bëgg a yeggale ci kàddu ci Cheikh Mouhamadul Karaasi li nga xam ne lot nañ ci lool. ndax ak bëggam lu baaxam ak fataam nga xam ne sa borom da koo da koo defal xikam lool ci ay waxam ci am xam-xamam bu rafet ci ay jikkoom ak bëgg nitam nga xam ne bu teewoon fii kàddu yi di yëkkati na ñu jotale da ñun danañ ci lott lool waaye ñun ndigal moom aw santam moo jëfe nuyoo bi nga xam ne moom la war a nuyoo jotaay bu tedd bi ngeen koy jël teg ko ci suñu loxol bàyyi sëriñ Mour Gueye mu jàllale ñu ko ci kilifa yu baax yu tedd yi sa nam gën a rafetee ca nam gën a matee comme ni ko Cheikh Mouhamadou Kara daan waxee rek li ñuy dajale fii tey nag yaakaar naa jarul guddal ndax mbokk yi bàyyi nga xam ne jot nañ ci jub ñëpp wax nañ ci loo xam ne nii du yomb a jàll waaye rek day tekki ne Cheikhul Khadim ak wajuram mu tedd wa wax ci ñoom day mel ni rek nga fekk géej nga tàng sa kaas nit la nga bàyyi na mu ëppee la si des luñ ci mën di wax buñ si doon fanaan nii noonu lay mel rek seen mbaax a ko waral soxna jaara moomu buñ yëggatee ci bisam war nañ ci jàngate ñun nga xam ne ay taalibe lañ moo xam góor lan moo xam jigéen lan ndax lu baax moom góor moomu ko jigéen moomu ko kon war nañu royee ci moom ndax bokk na ci moom ay jikkoom wax nañ ne bu masaane xëy day dem rooti balay acci ci kër gi dong ngay ñoro ko naan ndox mi ba mu jeex mu dëppaat wati ndax nee na rus naa taal te dong ngay di mar li mi taal rek bala koo taal dong ngay do naan ba noppi te ku ne xamne lolu du lu yomb bu doon ci jamm ju ñu nek ku ko xey def muy tu police nga jënd ci wala nga fanaan fa kon lolu war nañ koy ci soxna jaar bokku na ci ay jikko nit wax nañ ne bala ñu masaana da nañ tek mu duy ndaam mu duy ndaa yi kër gi yépp kon loolu bari tey war na ko see roy bokk na ci ay jikkoom nit këram këru boppam gi nga xam ne mooy këru maam moor gi da daan set wit ba bant sax du ci nekk te loolu kat du ko yàqal dara si jaamu yàlla ganu jaamu yàlla du ko yàqal dara si liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal diggante maam moor ak diggante mbokki boppam ak diggante mbokki dëkkandoo yi te buñ seetlee ñun su suñu wàllu bopp kuñ si doon liggéey ba benn liggéey képp boo ko matalee waxuma laak nag di ko booleeg te moom kër boppam googu loolu mu daan seet seet seet daw ko yàqal dara si jàmm yàlla bokk na ci njëriñ soxna Jaaratullaahi moomu maandu gu maandu woon ba te jiitu te man ko wax te mu nekk lu réer rek muy diggam ak Seexul Xadiim nga xam xam ne mu nekk moom bi mu gënee àddina ci kiimtaan yi nga xam ne Seexul Xadiim daan ko feeñal ci diggante ak moom. mu maanu sa ba nëbbal ko yëpp loolu waret nañ ci roy ñun ñi nga xam ne ay taalibe moom ndax dama seet ne bu doon suñ jamano ji ku am sa doom yu tàmbalee ree rek bu xëyee ree da ko ko wax ñëpp sama doom ja tàmbali naa ree bu doxee nga ne sama doom ja tàmbali naa dox bu juumee ba wax benn baatu olof nag dañ yee dig ci leen ñëw wax sama doom ji wax na moom nag Sayxul Xadiim dëkk dafa dëkk nag moom di ko wax ay karaama wala di ko wan ay karaama te taxul mu mas cee feeñal dara loolu ak maanu la bokkut ak maanu bi nga xam ne maanu woon na ko ci digganteem ak mbokki boppam ak si mbokki taalibe bi waaye loolu rek bay na si sëkk pour ñu soxna Jaaratullaahi moomu am na ko wax nekk xadd di jóodihi wala di jóodiha moom de ku ñu nekkoon na ku ñu miine ak dëgg adduna ndax xamoon na ne adduna daarul xaraar la rek dañ ciy jaar di romb mu teere na xam loolu la si musaaka doon xam ne njëkk a war adduna sa ndam bala laa war moom xamoon na ko bu baax ba dëdd woon adduna waxul nag ci col wala ci yaram waaye da koo dëdd ko nag di tekki ne jukkub alquran mi ngi ci loxoom jukkub xasida mi ngi ci loxoom yàqut ak dara la xam ne war na ko diggal moom maam moor loolu nag xamoon na ab dund ji jukkal bokk na ci li tax mu ci jéem góorgóorlu Ah, jëmm ju baax di tedd yooyu nga xam ne murit boo làmb ak xolam la mu yéene mooy ñëw fii màggal ak bisam bii wala di ko dëkkee di ko màggal ñun ñi nga xam ne suñu borom taw feexe la ñu ñu si ndigal ñëw ànd ko bu baax ñu màggale ko nan ko war bu baax di sant suñu borom ci nga xam ne taw feexe la ñu ginnaaw loolu itam dañu daanaka suñu kàddu ci cant gi nga xam ne sëriñ bi yónni woon nañ ko ci suñu wajur ñun danañ ci lot lool nag pour yeggale ko ni nga xam ne moom lañ ko sëñ bi waaye nag li ma waxoon léegi rek dañuy jëm rek bàyyi nga nii doo xam ne ay doomam ñu ngi koy tiitaroo loolu lu am solo bu ndax bàyyi bokk si yi ñuy solo am solo loolu te suñu bàyyi bii di seen ñu liggéey ñun dañ koy tiitaroo si liñ koy tiitaroo nag mooy liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Seexul Xadim te mu nekk liggéey ba nga xam ne moom la Seexul Xadim gën a bëgg ñu ne loolu am nañ ci kontaan bu baax a baax a baax a baax si lan lay sa Seexul Xadim ak bari ay melo yu war a liggéeyal Seexul Xadim waaye moom bi mu tànn bokk na ci bu gën a doon Seexul muy si jàkk yi muy si daara alquran yi nee na moom rus na am kër du ko defar te fekkul daaray bokk daaray Seexul Xadim ja noppi wala jàkkee Seexul Xadim ja noppi Seexul Xadim loolu ko ñoroon moom day lépp alquran la ba tax na boo xam ne kan ci kitaab wala hadis wala adab laa jam'u fiddatin wala jam'u saxaat kon moom alquran ñu doon ko lool suñu bàyyi bu tëdd bi ci lay xëy di si gont ci xësi la lay xëy di si gont te loolu moo nekkoon dëgg Seexul Xadiim kon bu see bu fekkee mën nga daal ñun dañ koy tiitaroo xanaa ñun daal lan lay lan lay sàkku si yow nga ñaanal ñu ko ñun ñu fexee si doom yi nga xam ne seen wajur doon leen tiitaroo ndax bor kat atte bor fay lan wax ginnaaw lebal nga ñu nga bokk ci bàyyi ñu tiitaroo nan ñu ñaanal ñu bokk ci doom yi nga xam ne seen wajur dañ leen ñu tiitaroo comme Seydou Khadim ni ko soxna Jaara di tiitaroo comme Seydou Khadim ni mu tiitaroo soxna Jaara nan ñu ñaanal ban bokk ci doom yi ñu tiitaroo noonu dana loolu lot lool ci jotal la kàddu bi nga xam ne sëriñ bi jotal na ko dana na lot lool ci wax jikko yu baax yi nga xam ne si ngay xëy di ci gont waaye rek li ñu ci jukki lu ndaw la ci waaye liñ ëmb ci xol bi moo ëpp loolu kon ñu ngi déglu kàddu yi bu baax di sant suñu borom mi nga xam ne fekk taw feexe lan ñu fekk ko ay at ren ñu fekk ko di ko ñaanaat mu taw feexe ñu fekk ko ay yoon yoon yoon yoon waaye bala ñu daaneel rek dana nuyu suñu bàyyi di wóoleelu sëriñ bi sëriñ Mbay Baas ak wóoleelu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi di déglu kàddu yi nga xam ne yëkkat nañ ko seen kanam di wax ne rek sëriñ Moodu sa wóolale sa digganteeg suñu waajur Cheikh Mouhamadou Kara dafa nekk lu yàgg loo xam ne xëy na xamuñu si lu bari waaye am na luñ ci xam nga xam ne bis bii mu dem wuute ko de metti woon na ko lool tiisoon na ko lool waaye jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam yéen ñaar nag seen diggante dafa dem ba yegg sa la waa doon wax ne xarit ba day ma dëgg kenn si ñoom ñaar day dem bay wooyee morom ji turu boppam yéen nag yéen ñaar da ngeen yegg foofu yàlla na ko suñu borom sàmmal te lépp lu ngeen si bëgg suñu borom defee ñu ci li kawe njort ني دغلو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته